Karaam mu ngi leen di ñaanal tamit lépp loo xam ne am nañ ko ci bés bi mu doon ab yiw buñ bokk moom mbokk yi dañuy dem seeti Omar Rew ci débat bi nga xam ne am na ko ci ba tey inondation yi ndax moo xew ñu seeti Omar Rew riiw mbokki xarit yi di leen nuyu bu baax a baax waaye di leen ziar ma am mbégte ak bànneex jàkkaarloo yéen ci sama biir émission bu mag bi mu nee naa leen saa su nekk fii lay leere ma am fi tey ñaari ndaanaan yoo xam ne kenn dootu leen présenté te ki Sénégal ki nga xamante ne bii mooy Omar Réew ak ki nga xamante ne mooy Yaay Fall Macky Sall Yaay Fall nuyul askan bi lay seetaan. maa ngi lay nuyu bu baax sax soxna Mati di la fay bu baax a baax baax di nuyu Sénégal li ko war di nuyu àdduna wërngal këpp di jiital nag ci nuyoo bi son excellence monsieur le président Macky Sall ak madame la première daam di nuyu waa diaspora bi yëpp yëpp di leen ñaanal kenn lu jàmm. Omar Rew nuyu ñi lay seetaan. di lay nuyu di la gërëm sant di la ñaanal jàmm di la ñaanal wér gu yaram ak kalaas lépp yàlla defal la ko daal. di la ñaanal lépp daal. yaay Fall ñu ñëwaat ci li nga xamante ne ba tey mooy. daal ñu ñëwaat ci li nga xamante ne bi mooy inondation bi boobu ba léegi gis nga ñu ngi ciy wax waaye dafa mel ni ba tey jàngoro ji saafara saafara amagul saafara ndax gis nga ba tey tey nu ñu yeewoo ci li nga xamante ne mooy inondation Omar ay nopp laa am bu tëxee fu ma jëm. <laughs> soxna Maté. waaw affaire inondation bi nag comme ni ma la ko waxee woon rek laa lay waxaat. ñu ngi ci bu baax. ñu ngi ci bu baax a baax a baax a baax. ndax dafa nekk loo xamante ne jàngoro joo xam dafay yàgg. son excellence monsieur le président Macky Sall ñëw fekk ko fi. Mhm. ay moromam jaar fi te fajuwul kon mënul ñëw teyoo tey mu faju benn fan. wax dëgg yàlla mi ngi ciy def lu mu mën. mook euh, gouvernement am yëpp. lépp lu mu ci mën daal mi ngi ko ci def te ñu ngi koy saytu bu baax jël nañ ci ay mesures yu am doole. Mhm. bu soobee yàlla lépp dina faju Omar yow laa euh, invité woon ci boobu ba léegi li nga xamante ne bii mooy inondation bi te gis nga ba tey tamit saafara amagu ci ban idée nga ciy daal di joxe ak matukaay yu ñu ci war a jël. Eh, xanaa yar muus daal eh, li ma bëgg daal mooy ñu wax. damaa yaakaar nag kii bi day waaj a lii bi nu mu tuddati sax euh, débat maam day waaj a parce que lii ma gis muy xeeñ di ñëw maanaam man du ko ci yow nag bu dee da nga koy toog di ko xaar nga toog xaar ko parce que man lii du ma ko xaar waaw eh, dañuy waxtaan mhm. lii laa bëggoon moom mu dem pata pour ñu mën a waxtaan ñun ñaar mhm. eh, naga def nag maa ngi sant bu baax yaa ngi sant yàlla looy laajte li nga xamante ne mooy inondation yi rek tey ñu yeewoo ñu li nga xamante ne ba tey gis nga bunt yi comme ni mu doon mel noonu la continuer di mel ba léegi toogal rek yow dara du am waaw waaw léegi inondation bi comme ni mu ñu doon sonalee ba léegi ñu gis ne boobu ba tey ñi ngi naan dañ koy saafara dañ koy saafara waaye ba tey gisaguñ ci saafara nan nga xalaat ne moom lañ ko war a def pour ñu mën koo saafara. li ma kalaat daal lu rafet la. Mhm. parce que daal gis naa ne. Mhm. Eh, réew mi bu ñëwee rek nga dugal ko. Mhm. gis naa ne réew mi. Eh, dëkk bu jàmm daal la ñuy ñaan. te président Macky Sall xale yi li def tey Cambérène munoon na ñàkk. a télé bi. dañ leen war a régler seen problème. dëgg la nga ni. xale yi nañ leen régler seen problème. mais parce que ñoom boobu ba léegi tamit ñu ngi ñaxtu waaye gisaguñu lenn loo xamante ne mooy saafara bi tamit Omar. waaw saafara bi. Mhm. mooy dañuy fexe. Mhm. ba jàmm am ci réew mi. Mhm. <laughs> jàmm am ci réew mi. yàlla defal ñu ko. may ñu jàmm. defal ñu jàmm ñu ñëpp ñu am ko. su ko defee daal. Sénégal mën a jëm kanam. dëgg la ndax réew mi benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. xale yi di baare télé bi. loolu am na leneen lu ko gën. dëgg la ah na jël na ay mesures. waaw pour ñawal Sénégal ñaw bu rafet. Mhm. bii paa ñu ngi xaar ban ñaw lay indil Sénégal. Mhm. ndax moom tailleur la. Mhm. couturier la. ndax day jël mesure kuy jël mesure mooy ñawkat. dëgg la te ñaw bi daal dañuy ñaan bii paa mu rafet. ah ñun de askan wi soxna nañ ko ndax waxuma la sax inondation bi coono gi ci nekk mais moor yi nga xamante ne bii moom lañ ci commencé di jàng di moom lañ ci commencé di di koy gis démb Touba tey fii nga xamante ne bii mooy dakaar lan nga xalaat ne tamit buy taw ñi nga xamante ne tant que état ñëwagul ban mesure lañu mën a jël ci seen bopp. Eh, mesure bi ñu mën a jël. Mhm. état li mu mën a jël ci mesure. ci yow laa koy commencé. waaw mooy di la féliciter sa émission bi parce que mhm. day tax askan wi xam. Mhm. Yaay Fall ba ba léegi ñu ngi gis ne yéen a ngi ne da ngeen di jël ay mesures ci li nga xamante ne bi mooy inondation bi gis nga léegi dem na nag ba mujjee gi sax waxatuñu sax indoné kese mais gis nga moo di ci xaw di bëri daal démb Touba fii nii tey ci Dakar yow ban mesure nga xam ne nag fi mu nekk war nañ koo gën a jël plus rapide ndax nag ñu ngi sonn moom laa la wax rek mooy li ma la wax sànq ni ñu ci war def ñu ngi ko ciy def mhm. di di di ñaan tamit euh, suñ seen waajur yi mhm. di leen wax ne ñu seen ginnaaw. te ñu ngi masaw bu baax a baax a baax. li ma dégg fee muy laam di jëree ko. di ñëw du lu ma neex. waaw su ko defee daal di tàggatoo parce que am na yoo xamante ne man mënu ma koo supporter fii nii si plateau bi. waaw état jël na ci lu mu ci war a jëlee. balaa ngay laa waxoon mu moo tax bu toogee ci plateau ñu invité ko du fay téléphone. amee. Eh. sama sama sama sama jabar moo ma wax ci biir émission bi dina ma woo. moo sa sa sa jabar bu la boo def émission mu xaar ba nga pare nga woo ko. sama jabar nag moo ma moo ma leen génnal. ndax moom lam tooro la buur gende alwaar la surtout Umar Fuutiw Taal la su wootee damay dagg war ma dagg émission bi waaw kay su ma sama jabar laa no war na la yaraat laa wax nu ma nekk noonu la ma takk jabar na ma ko ñëpp nopp seen jabar Omar ami réew ami réew wax leen ko <laughs> wax leen ami ami ami réew mooy ah, ami kay dafa yaru ami réew ami kay dafa yaru ami kay dafa yaru ami réew mu ngi nii waxal ak moom Omar yow sa jabar ku baax la soo amee looy wax da ngay bàyyi ba ñu pare. Ah. waaw rek ami réew. déedéet ami kay réew dafa yaru ami. kooku kooku kooku kooku xalwaar la dafa yaru. moo ma waxoon dinaa la woo. woo na kon ami coupeel léegi daal euh, waxtaan bi nekk na. waaye waa après xam nga waa après waa après ñooy après ñoom du ñu def avant pendant après rek. dañuy bàyyi ba mu taw ñu ñëw taxaw après dañuy bàyyi ba dëkk bi ñu metti ñu ñëw taxaw après après mooy APR. waaye félicitation nag. waaw Macky kan la may ñawoon nag moom day jël mesure rek yow doo bokk ci ñi ñawoon. Macky day jël mesure rek doo bokk ci jëlal na waa Yaraax jëlal waa Ngor waa Malika jëlal waa gàkku gàkku yi. jëlal ñëpp moom ñëpp lay jëlal mesure ba teer boo xam ne day jël mesure teddu mais cette fois ndox mi xanaa jël na yoo xam ne moom inondation bi moom dina xanaa tiis ñaw la déggoo li ma la wax mesure ci war a jël yëpp jël ko bu soobee dinañ ñaw dina soobee lay ñaw ñi nag yow na jël mesure yi màggali ñaw yaa ñaw yi ñu ngi koy ñaw seulement que ñaw yi dafa bari dañuy def nànk nànk nànk moom ay ñëwam seer na de ay rek yaa jàmm Macky Sall ay ñawam milliards ak te ñawam dafay fekk loo xamante ne ay moromam ñoo fi jaar defuñu ko fi pale couture ay moromam ñoo ko fi jiitu te defuñu ko mënoon nag ay ay ay 40 ans ay 50 ans ñu def ko nga bëgg ko defar ci 10 ans mënul nekk oh, oh, oui maa lay rëy kay pale couture seen ñaw seen kan ngeen di défilé nag li ngeen ñaw bëri terre bi war na défilé ak lan ngeen fi waxoon day défilé avant lan ku ko ñoom ñoo ñaw terre bi kañ la ko défilé ak inondation ñaw la dund bi ñaw la terre bi ñaw la ah yéen li ngeen war a défilé seen ñaw yi dina bëri de Macky Mazir. waaw wax dëgg Macky ak mën a ñaw. Macky téyeem bi dafa ne moom loolu ci a gaaw rek ñu gën a xeeb yaay faal. incha allah rabbi balaa yàgg dara lépp dina normal bu soobee yàlla delluwaat palaasam. Hmm. parce que président mi ngi def kéem taraay kàttanam. Hmm. bu ko defee ñu daal di tàggatoo ci jàmm ak salaam tàggatoo émission kay ñi borom émission mooy tàggatoo émission jàmm ak salaam jërëjëf jëf yaay invité man maa lay man maa lay eh. ba ma eh. yeewi la tamit waaw danga ma nekk danga ma nekk man mënumaa neexanteeg yow ndax yow àdduna damay seetaan chaque jour nga di ma toroxal doo ma jox sa numéro téléphone danga ma nekk déedéet sama numéro moom wax dëgg yàlla mënuma la koo jox ci ma man affaire caakaanu ndax yow invitation laa mën ci yow naa la may may bu njëkk baal ko baal ko baal ko baal ko Thierno baal ko baal ko kaay def nii kaay kaay waay ah yow kaay.